basumo basumo mbare sukundonko abidé iba famale dia peuple sénégalais neexal nit neex na wax lu leen neex neex na waaye li ma leen waxoon laa leen di wax coow li ku si tëddeewul njaaxaanaay ku si tëddeewul njaaxaanaay doxinu jaan nga si am fi ngeen yóbbu coow li ak fi coow li toll woon moo te je pense que actuellement seuls les douze coups de la liberté moo ñu ci mën génne pour se débarrasser de la France pour régulariser suñu réew <coughs> topp naan Macky Sall élection gauche droite ma bañ gëmatum ko ndax si nakar lañ jëm te naqar gu metti la ñu ñëpp jëm mu ñuy neex mu ñuy naqari ci naqar lañ jëm il faut que nous que ñu combattre solution je may proposer moi quel que soit le prix à payer conseil constitutionnel lañ leen gëmloo ne civiline conseil constitutionnel ñoom ñooy nday charte nous mi ñoom ñoom moom nous ñoom yor lépp faux yéen vous les jeunes lieutenants PA yooyu ñu leen di jox douze balles lañ ciy def benn balle bi kese moo gën a diis les sept sages bu ñëpp demee tey bay yaakaar ne senegal est-ce que am na ay cour ay nit di def lu leen neex kenn sañ ta wax ay nit une minorité de personnes nous imposer ses diction France nous na leen léegi nag désormais Mom, li France veut, mom, France moo fi am léegi li doomu Sénégal bëgg du fi am te faut ñu nous ko te muy dëgg c'est dommage que civil yi ci manipulation la ñuy politiquer gis na fichier électoral am nañu li man nak du ne kenn da ngay manipuler parce que ça. itam juum de bonne foi day am il xam foy am te ñi farak Amadou Ba bari problème bi fa la nek te man Amadou Ba ans de déstabilisation ko li mo leen moy sama waxu ne sera jamais le président du Sénégal et Macky Sall va quitter le pouvoir avant le 2. wala ñu forcer préparation yi nak lima len leen la len leen di waxaat de yéen un jeune lieutenant yeen les jeunes lieutenant day l'armée wala yeen population tollu nañ fo xamné ne calculer wóorul am ay soldats yu melna ñom commandant fallu wad worul xar ba tok ba paré nan man maa musigoon té bi ngay musique bobu ka nga doon musigal opposant la c'est faux la jeunesse solution bi mooy buñ ci xëppul kaani bay woy mbuus solution bu mooy ku xaar xare ku xaar xare sa noon gën la jekku xare boo koy xaar mu lay gaañ te kuy bëgg a dee ak kuy bëgg a tuxu fi ñu jëmee kenn xamul lan la lu leer laa leen wax affaire bi day metti lool fu mu toll nii foog mu saf affaire bi foog mu saf ndax on va combattre farouchement on va combattre barke sëñ Bamba on va man li ma leen waxoon démb laa ni waxtee de yéen boo leen génnee ñoom ñu dóor leen lacrymogène ma xeex xeex bi au cas échéant yéen a ko politiser xeex bi doon xeexu politique waroon nañ ko sénégaliser yéen ñëpp sur soir seeni égo li ma leen waxoon départ de moom la ñëpp commencé waat wax moo tax ay ree jàpp ma ne leen ne opposant yëpp teg li ñuy teg Nous bootu ñu fight fayit bi jëlee fi Macky Sall opposants militaires les 12 coups premier coup je xam nationale pour mu régler le comme y a 14 régions au Sénégal région régions dafa am zone militaire zone militaire militaires ay colonel ñoo sont yi palais présidentiel les jeunes militaires patriotes Je xam ngeen sacré c'est une commission dans les 14 régions C'est li séquestré les commission coow li ñu commission ku à côté gis deuxième coup juge département département, chaque département a un juge chaque région a un juge

Babacar Diagne ci biir ISEM bi la bokk koo koy sixième coup de pistolet bi Babacar Diagne ñoom Madiambal Diagne mooy xeetu journaliste yi septième coup bi nag moo war a précis balaa moo dugg Maroc bëgg a yàq suñu réew ne bu leen jox réew mi Amadou Ba France ne réew mi Amadou Ba moo koy jël askan wi bëgg a fal Ousmane Sonko. wala basiiru Diomaye Faye fa laay waxee nii fa la réew mi toll tey ñetti camp moo fi nekk camp wu Marème Faye ak Macky camp wu France ak suñu camp ñun léegi ñun nag naka la ñuy def Moustapha Diakhaté si si bande à Marème Faye bi la bokk maa ngi ñëw ci loolu gars xeex lañ jëm de Marème Faye wax na ay généro ak jëkkëram Amadou Ba a gagné à 52 pour cent hop réew day tak généraux yi djel mais metti metti bu ko ñom Bassirou Diomaye fay djel donc le pays sera gabonisé lolu kan mo yor commandement bi Bernard Henri Lévy c'est la France qui est derrière tout ça parce que France soit Macky Sall passe l'éponge soit la France lui-même soit la France elle-même l'exécute ça c'est automatique bi pas France mais xalatuñ ko comme ñun xeexuñu ba jot li ñu bëgg a jot léegi nag ñun nag suñu xeex xam nga kañ lay doon ci biir couvre-feu bi ak ci biir état d'urgence bi ndax métti métti Sénégal ci coup d'état ñu jëm. ñu ne ñu septième coup bi mooy Marème Faye Sall Marème Faye Sall foog mu bokk de administration mooy huitième coup bi foog ñu téye ñëpp institution française yi mooy neuvième coup bi kooku foog ñu attaqué ko dixième coup bi ONG yeeg yooyu kooku foog ñu jàpp leen kooku foog yéen ñëpp am présence d'esprit, esprit xam combat, combat bi buñ ne de marée. institution française en premier ambassade France foog ñu nous ko kenn du jàll kenn du ñëw foog ñu bloqué base française yi nekk Sénégal un service de renseignement yi nekk Sénégal dirigé par le Sénégal. tout ce qui est DG il faut qu'on bloque ça wàccee nday drapeau France d'abord, d' abord balaa xat bu coow li tàmbalee ndax coow lee ñu ñëw ah, foog mu am ku mën financer arme na ko financé ku mën financé drone na ko financé cocktail molotov fi dinañ ko lijjanti. onzième coow li mooy kër politi kër politiciens yi kër politiciens yi politiciens yi policiers yi ndaw ndawaan yii bind PV yi ñu ngi ne teg ngeen foog ne dañ leen réer adresse par adresse koñ par koñ gox par gox OPJ bu mos a chargé PV jappal ne bu Macky Sall defé lu muy def ba paré justice populaire boobu dina dal sa kaw OPJ sar bu way ñom waqi nan nim jaat di gis di wat lu la neex nga kay watal boy ndax lan Ousmane Sonko ndax lan Jola nga ndax lan da nga ñuul ba tecc nit si da nga ñaaw ndayam di ñu rebel jërëjëf loolu yëpp yegg si na si man on va gérer. douzième coup bi pour lan kan la war a mujjee doon ku ñu war a mujjee éliminer Sénégal rey ndeyam xatit mooy Macky parce que xam nga lan foog mu fekkee lii yëpp douze coups yëpp foog mu fekkee ko. Macky dafa suur France da ko imposé ba xoolal dafa suur Sénégal nara tas nday Sénégal taal Sénégal dem yoonam. tey booy yi ñu ngi xëy 6 heures du matin woo ma grand gan Demba Touré la ñu war jëli man leen et eh, après non dañ koy jëli man leen waa léegi et eh, après noo jox ñu numéro tel tel man leen déggu leen koo leen woo man may boole seen ndey direct kenn du fi woo kenn booy bi nañ ko jëli tëj ko moom moo ñibbi sinon na ko assumé point xam ngeen sax pour lan lan lan moo tax sax ñu waroon jëli sax ngañ Demba Touré gars yi état bu faussé juge bu la convoqué juge bu la convoqué wuy ji

kan dem Touré tay dafa balancer ben enquête bo xamne ne ñibbiseem bi kérok bi mu ñibbisee nee naa leen il a commis l'erreur de sa vie ñu lay jiiñ dëmb ngay seeñoo pooju lire la ngañ dem Touré def ni ay wala Ousmane Sonko terroriste Basir Diomaye fay post Facebook ñu dugal ko kasso jiñ ko terroriste ñom Amidia terroriste yi gennu guñu ñoom Ousmane Kabiline terroriste yi ñoo ñëpp kenn génnagul tey nag Bassirou Diomaye fan la Ngagne Demba Touré jóge Mali fan mooy Mali l'ennemi de Macky Sall mooy Assimi Goïta l'ennemi de Macky Sall mooy Assimi Goïta numéro un de Macky Sall mooy Assimi Goïta ngeen foog tey charge yi complot terroriste charge yi ñu teg si ndodd tey Bassirou Diomaye fay ak li xew Mali ak gouvernement Mali bi ak terroriste xew Mali nga foog ne tey charge bu la neex tay procureur tay sañul tay def tay sorti defat na mu daan def ñeu nokkat charge ci kaw boy bi nokkat charge ci kaw Ousmane Sonko nokkat charge ci kaw Bassirou fay eh la France la la la, le problème en est que le peuple sénégalais là le combat les dépasse Si vous imposez votre candidat, si on se lève pour combattre, il y aura coup d'État. Ça sera vos gendarmes ou vos militaires aussi qui vont diriger. Mais l'essentiel, le dossier terrorisme-là, ça peut mélanger notre sous-région, le Sénégal et le Mali. La France, je vous en prie, je vous en surpris. Taï, Macky tey laay doog a tey man mun jàkkaarloo tey Macky Sall tey buñ jàkkaarloo tey ma ne ko yee eh, léegi xam nga la la dañ lay ñaan dañ lay ñaan demal quoi jàmm am dossier terrorisme bi teg ko su suuf ndax c'est pas vrai ndax fi ngañ démb Touré jóge booy buñ lay jiñ dëmm doo seeñoo pooju liir xam naa lu ma wax buñ lay jiñ dëmm doo seeñoo pooju liir Maman, bi pour rentrer là-dedans képp ku bokk Pastef xool c'est comme de l'eau Bassirou Diomaye Faye ak ñëpp ci yem parce que Mali mooy ennemi système bi numéro 1. def na ba Macky Sall supporté wul Goyta Goyta supporté wul Macky Alioune Sall le frère de Macky Sall moo envoyé avion pour coup d'état Assimi Goïta gars yi yéen xanaa doo leen suivre information wala yéen xamu leen c'est que problème géopolitique pour yéen Ngagne Demba Touré jàppam bii nii gars yi xoola dañ lay jàpp ba pare toog di xalaat ma ñàkk sama ndey démb laay fu ma ma woon laay parce que am na kilifa yu bari intervenir non xale la non jarul jox bës non jarul lii jarul lii mais Ismaïla Madior Fall ngeen di waxal de gars yi Ismaïla Madior Fall ngeen di waxal Aïssata Tall Sall ngeen di waxal balaa moo wax démb jël nañ décision avant-hier la nuit pour këf booy ngañ dem ba Touré si fii may live code Charenton xam na bu baax lu may wax depuis keroog naa booy bi dañ koy këfia parce que dossier terrorisme bi gars yi dañ koy enrichir Roqe Wilson <laughs> ñi may waxal si suuf dañuy nekk en avance booy xamoo danger bi ñu dugal dossier terrorisme bi da nga ko ubbi waat ubbi boo xam ne yow sax yow xamoo li nga def booy déglu leen ni ma leen wax greffier yi bu ñu nekkee en grève certes mais ah France ne nañ teggi de France bi ñu doon bañ mu dugg ci coow li moment nag bu ci France duggulee làmbaay ñaaw comme benn xalif généraux dugg ci benn kilifa diine dugg ci France doo nga moo mun ne Macky Sall eh tegal lépp si suuf nga organiser élection yi jóge fi nga dem jiite ji say 4P wa ilaa ñu yóbbu la CPI loolu lañ ko tegal sur la table léegi nag ah nañ ñaan yàlla suba Macky nee na day wax mais ñun suñu wax a suba Macky sincèrement man saan ma regarde pas de man xam nga man lu ma regarde vendredi bi vendredi bi vendredi bi gis ngeen na Macky Sall ne woon na da leen di libéré waaw ah, commissaire waa ma ne ma yaa woon bu ñu libere sept cent booy da ngay ñibbisi <laughs> sama gars yi man dossier terrorisme bi da ngeen di fàtte ne daaw si ngeen ma yóbbuwee commissariat Catherine fii ba ma def fi quatre jours de garde à vue ci dossier terrorisme bi ndekete ñu ngi xool ndax damay julle damay woor ak lu ne la xoola inspecteur bi ay ree da ko mujjee jàpp mu ne mais toi mën na ko waaye moi les religions la ça ne m'intéresse pas moi je suis Baye Fall moi en vie là je l'ai une fois moo jë Dieu ses enfants sont en vie dem leen laaj sa commandant bi lu ma ko wax dama ko ne man sëñ Bamba ma moom man nekkuma ci li sénégalais yi nekk ay affaire terrorisme ku fa duggoon ci terrorisme may ray sa nday mais nekkuma ci yooyu te pourtant Macky Sall daf ma trempé ba ci biir man mii di wax ak yéen maa ngi ba ci yàq ba ak Ousmane Kabiline Diatta te yàlla xam ne ni ne Ousmane Badji décédé na ki ñu jaawaleel Ousmane Kabiline jaata ki doon ànd ak man Ziguinchor décédé na mais léegi nag fan lañ jëm ak Macky Sall 700 booy laa leen waxoon patriote libéré gu leen 700 ay neutre ngeen gëna libéré 54 patriotes dog ngeen libéré reste bi 300 et quelques c'est des neutres ñom ñep luñ lay wax dama doon dem pharmacie dama doon jëndal sama yaay dama doon wa wala déet c'est que man demul demul logique sama bop nekkuma ci ay sentiment ay pouvoir en cassation ay recours xawma lan rabat dara nekkuma ci lolu demul logique ay neutre lañ jàppoon ay neutre lañu ñu génnee patriote yaa ci kasso bi kenn génneewu leen ajjuma nag nekk fii ñuy terroriser booy yi dugal ay xaj ci kaso beeg di leen kërti kërti ndax ay terroriste ñoo des ci kaso bi Fall Fall enquête bi gars yi dafa mel ne dañ ko taalaat enquête terrorisme bi taalaat nañ ko vite fait te loolu xoola France moi qui organisé Bernard Henri Lévy va exploiter ça ils vont tout faire pour juger Bassirou Diomaye munoo nekk ci problème de terrorisme ba pare bëgg nekk président vous n'avez rien compris ni xamu leen luy daw ajuma foog ñu wàccee ndeyu Macky mu dem ñu dem booy le trio est complet affaire bi du ñoom Kaba du ñoom qui kii jóge Mali ñëw la lu waay defoon raqu Macky Sall jappelen ne tay ngañ dem mu turi dina ko fay saa waay ñaan yalla bi pa kenn du ñaan tuba ñaan tuba baxul mais yeen autorité justice yeen ci mun japp yeen nit ay nit ngeen ay góor ngeen ay gor ngeen yeen greffier yi yalla na ci juge japp mais nak outrage à magistrat be ma jaxal fokk ngeen japp ci yeen léegi yet naa yéen ñi yore paya borom douze ku yi sobe leen réew mi li laay war a suuli foog ngeen sobe réew mi fa lañ toll fu mu toll nii ma nekk ma ci ay gauche droite di leen tóojal carte gi je m'en bats kuy kontaan ku dul kontaan. Pastef combat innocent la ñuy combat dañuy xeex ba si yàgg wooy gagné ñu les charrues avant les bœufs ngeen bëgg def jiite réew mi te falaguñ leen waaw bu ñu leen falee ci làmmiñ it mënugu leen jiite réew mi tant que géré gu leen institution yi te institution yi Marème Faye nee na déet. Macky Sall nee na déet généraux yu bëri nee nañ déet léegi patriote yaa si des naka lañ ko munee am xeex France jël xeexaat Sénégal jël suñuy doomu patriote loolu rek a ci mën pour Sénégal changer benn balu pistolet moo sut conseil constitutionnel benn balu PEA waxuma ay m waxuma saar yi génn waxuma douze sept yi waxuma quatorze sept waxuma loolu yëpp benn balu fetal laa la nga dóor ndeyam ci bopp Macky Sall mooy xoola coow li jeex na coow li franku lay na dóor ko bal dem su sulli maire Koumba timboo nank comme ni ñu defoon Alassane Ouattara dóor ko bal dem sumi maire Koumba timboo ñëw teg ko ci wetu Macky Sall dóor Marème Faye Sall bal sotti leen essence taal seen ndey foofu la Sénégal tollu boo leen buggee jàmm réew mi man nekkuma ci ay wutuntu jàmm yi ngeen nekk nañu dem élection dem élection boo xam ne duñ ko gagné du ma ko dem man maa ko dul dem duñu ko gañee point France d'accordul Macky d'accordul la majorité mooy loolu xeex moo ñu koy may xam nuñ ko xeex di may jour élection la ñu am lu ñu naqari. hey bu ñu ne voté nañu diw je félicite diw. bu ko neexee sax ne je félicite Mohamed Boun Abdallah Dionne wala <laughs> mais il ne va jamais dire jamais je félicite Bassirou Diomaye Faye Yalla sax na Bassirou Diomaye Faye bokk ci élection yi ak dossier bu mag bi dossier bu mag bi ngañ dem motori wat ni yalla na ñi eh ñibbi siw ma man du terroriste bokkuma Pastef ñaar ba ñetti commissaire wo nañ ma ba dik <laughs> on t'avait dit que tes relations au Mali allez vous faire foutre allez vous faire foutre Je supporterai le, Mali jusqu'à la fin de ma vie man Mali moi je supporterai le Mali Mali c'est un peuple révolutionnaire Assimi Goïta il est révolutionnaire c'est pas un lèche-cul français bokkuma Pastef de je ne suis pas un politicien man africain lay xeex pour clôturer le débat bi maa ngi gis benn coow boo yëpp di ma vidéo bi ne ma grand foog nga wax grand foog nga wax man leen booy mbaa su ma waxee dina leen arrangé si affaire Soul Band de la Guinée nous qui avons l'habitude de voyager nous qui avons l'habitude de voyager, on sait que la police frontière sénégalaise est l'une des polices les plus professionnelles. Professionnelles, je cite, je précise, de l'Afrique. J'ai fait Conakry, j'ai fait Mauritanie avec un policier qui te casse la gueule en, roche, il ne reste pas. Entrer en Mauritanie. Conakry, si tu as un problème avec Guinéen, mon frère, tu ne parles pas. hors nous, au Sénégal, au Guinéen pour te mettre 5 ans de prison. Dans les aéroports, il y a le respect qui s'impose. Moi, arrivé ici en France, j'ai eu ce même problème avec la douane française. Ils ont fouillé mon sac, j'ai refusé de ranger les bagages parce que c'est eux qui l'ont fouillé. Je ne peux pas traverser Maroc et partout et foutre le bordel. Mais ça, tel n'est pas le cas. Quand on m'a demandé adresse, j'ai donné adresse comme la légion étrangère. Et puis ils l'ont vu, ils ont vu l'invitation. Raison pour laquelle j'ai quitté l'aéroport. Mais mon frère, si tu n'as pas d'adresse, si tu n'as pas d'adresse, même si tu as 5 millions de vues, le policier là qui est face à toi, c'est un homme assermenté. Et il y a un peu de respect, le minimum de respect. Le courage de l'homme, c'est quoi respecter celui qui est en face de toi et qui est en service. Ça, c'est des professionnels. Ce n'est pas la police de Macky Sall, ni de Antoine Diom, ni de quelqu'un d'autre. La police des frontières, là. Ce n'est pas la police de Macky Sall, je regrette. Macky Sall a fait qu'il y a une autre police qui reste à l'aéroport pour les arrestations. Mais cette police-là ne signale personne, n'arrête personne. Ils n'ont même pas le temps. On les a donné des listes et tout. Mais ils n'ont même pas ce temps. C'est des professionnels. Ils contrôlent leur pays. Soulban, c'est normal. Peut-être que tu as été un peu secoué. Mais en Guinée-Conakry, qu'est-ce qui se passe à l'axe Mais c'est ce qui se passe à l'axe là. Mais c'est ce qui se passe avec la police de Macky Sall qui sont dans les rues. Est-ce que dans les aéroports en Guinée, au Mali, au Sénégal, est-ce que ça se passe comme ça Non. Parce que c'est des policiers formés, diplômés, qui savent ce qu'ils font. S'il y a eu des petits problèmes, on peut les régler dans l'anonymat et puis faire ton concert, rentrer. Général Makoso je te comprends, tu es allé dans l'euphorie. Ah, mais non, non, non, je regrette. En Côte d'Ivoire, si un Sénégalais a problème avec Ivoirien, arrivé à la police, il ne parle pas. Pourtant, nous, au Sénégal, un Ivoirien peut mettre au Sénégal un Sénégalais deux ans de prison. Qui a la police la plus professionnelle Qui a la police la plus attentive La police qui écoute le plus Qui Qui a la police la police la plus professionnelle qui Il faut qu'on se respecte. Ces petits problèmes-là, c'est pas la peine qu'on se déborde. Ah, non, non, non, c'est pas la peine. C'est un jeune chanteur, il est jeune, vu son âge, on l'a brutalisé. Il pense que ce qu'il voit à la télé, c'est ce qu'il vont le faire à l'aéroport. Non, non, non, ça ne se passe pas comme ça au Sénégal. C'est des professionnels. Je regrette. Je regrette. De dire que je suis Guinéen, non, non, non. Je suis Sénégalais. Je suis sénégalais. Et je connais la police des frontières. C'est des professionnels qui sont là-bas. C'est comme la police qui sont dans les affaires étrangères, là, voilà. Qui sont dans les, les gendarmes qui sont dans les frontières, les gendarmes qui sont dans les consulats, qui sont dans les bureaux passeports, qui sont... Ces gens-là, c'est des professionnels, encore une fois. Ils ne sont pas là pour des politiciens. Ils s'en battent les couilles des politiciens. Mon frère artiste, je regrette, mais je demande pardon aux artistes qui se sont sentis frustrés, qui ont parlé de dire c'est vrai, c'est faux. Non, non, non. C'est un petit problème. C'est des altercations qui arrivent souvent. Mais le respect voudrait que notre police soit respectée. Cette police qui est à l'aéroport et cette police qui tape dans la rue, c'est diamétralement opposé. Dans la rue, c'est des génies qui sont dans les manifestations. Ces brigades d'intervention. Ça, c'est une police professionnelle. Police aéroportière. gars ni le la de merde. Boy, bi mouro no len. gis ngeen filmé na vidéo bi vous avez vu tous les hypocrites Genn wax ah mais yen fi la suñu police sénégalaise ray nday boy wax ngeen. Ayo. la police sénégalaise bi mu rayé boy. yow DJ Awadi tuuti wu bi police di dugg di dem di japp ñep. yow DJ Awadi fo nekkoon. Bien, foo leen nekkoon ndayam fan légui ñu laal guinéen ngeen ni ubbi nday sen lamine ah di wax loo leen wax parce que c'est un guinéen qu'on a secoué le cou là on a secoué l'épaule vous osez ouvrir vos bouches pour parler soyez sérieux nit da ngay sérieux su lu ngay def gars yi man duma hypocrite je ne suis pas un hypocrite da ngeen soyez sérieux on a tué les jeunes sénégalais ce que Macky Sall fait là la police aéroportière n'a pas fait la moitié ne nous aimerait pas quoi, ben instant. Dignité panafricanistes. panafricaniste. Panafricanistes qui sustent toutes sortes de gouvernements, ça c'est des panafricanistes. Des panafricanistes qui vivent de quoi À travers les ONG de merde, vous vous réclamez pas. Allez vous faire foutre, il faut qu'on se respecte. Ce qu'on a encore habité, il va faire mal, déjà.